Euh, assalamu alaikum, monsieur le ministre ñu ngi leen di nuyu di nuyu suñu collègue député yi fii teew yëpp li ñu fi dajalee loi d'amnistie la loi d'amnistie nag mooy charte boo xam ne bii yitte bi muy dox mooy indi njëggal ak baale ci biir askan wi bu ñu xoolee ci Sénégal ki nga xam ne bii moo yor mébét bi maanaam ki nekk ci cuggal coggal guyam mooy président de la République ndax moom la constitution may moom kese muy càppaacoli ci wàll wi mu mën koo mën a indi te mu am fu mu ko sukkandiku ci constitution bi àdduna bi yëpp wërngal képp saa su loi bi mel nii ñëwee indi na jiixi jaaxa musul am foo xam ne fii nit yi dañuy def unanimité ci wàllu loi d'amnistie amul fenn et dëkk yëpp boo fa jaaree ñàkkoon a njëgu Afrique du Sud bay ñuy waxee Rwanda ak feneen ak feneen ak feneen ñii ànd nañ ak moom ñii ànd ñoo ak moom ñii àndul ak moom nag sax dañoo wax ni loi d'amnistie dafay violer le droit international am na ñu wax ni dafay anonymiser te dafay virtuel day tax doot kenn dootul jëmmal ñi nga xam ne bi ñoo def yenn njombe yi maanaam lu jëm ci ay crime wala ñu wax ni dafay criminaliser ay innocent maanaam koo xam ni kii deful ba mu nangoo dugg ci loo dem ne si jàpp nañ ni dañu mën nañ jàpp ni kii dafa borom njombe la woon wala muy yokk ñàkk mbañante ci biir askan wi wala muy tere muy indi li ñuy wax l'effet dissuasif de l'exemplarité lii lépp bu dajee li jur mooy fii ci Sénégal dañoo toog kiñ ko may moom mu ne moom mooy indi une loi d'amnistie ñan ñoo mën a am njariñ ci loi d'amnistie bi victime dama ciy dem rapidement dañoo wax ni manifestant yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci cas bi ñoom la ñuy wax les victimes victime nag boo ko indee mën nañu leen xaaj ay pàcc yu bëri victime directe victime collatérale victime directe kii dafa ñàkk bakkanam kii dafa gaañu kii dafa yàqule ñooñu ñëpp ay victime lañu et victime collatérale mooy ki nga xam ne moom jotewul ak manifestation dara tey njombe dal ko ci mu am naqar bu mu ci mën a jële damaa dégg suñu collègues yu bari tey jii ñu wax ne bu ñu fàtte les victimes ma wax ne les victimes ñun la parce que ñun ñoo xam seen i tur ñun ñoo xam seen i njaboot ñun ñoo xam seen i wayjur seen turu papa seen turu yaay seen turu jabar seen i doom ñoo xam fi ñuy liggéeyee ñoo xam ban métier lañu ñun ñoo xam seeni i

tey monsieur le monsieur le président de la république mu ne loi d'amnistie jël initiative am moom ci boppam ñun laajuñu ko mu ne dafay indi loi d'amnistie mais du ko ne déedéet du ko ne déedéet ndax moom la ko constitution may bu ñu bëggee dem d'amnistie ba dañ ci réew mi dañuy indi fii dindi suñu code constitution ne dañ ko ciy dindi kooku su boobaa kenn amatul sañ-sañu wax ci loi d'amnistie ko loolu nag mën nañ cee liggéey suñu noppee en attendant madame la ministre dafa am dañoo produit livre blanc wax ni ay coupable ñu ngi ni ñi dañoo rey nit fi taxaw nañ sax ne ñun ñoo ñun ñi dee ñun ñoo leen rey am ñu taxaw ne ñun rey ñu alkati moo rey wala gendarme moo rey victime yi buñ leen joxee tur jox leen jëmm ba noppi te ñu mën leen a xam leen ñun ñu mën leen a xam leen laa wax bu kenn mbubboowoo ki takk bracelet parce que ñu jàpp ko du ngeen seeni mbokk

ku torturé ku def acte dégradant suñu question mooy ndax loi bi ni muy mëdde li téléphone yooyu ba tax ne nañ jubóo day mëdd seen jëf yooyu mooy suñu question bu suñu xel dalee ci parce que moom la njaboot yi la mbokk yi laajte la mbedd mi laajte moom la avocat yi laajte la expert yi laajte ñenn ñi buñ ci amee tontu bu leer ànd ak yéen ci parce que su boobaa man sama xel bu ma bata loi bi Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Abdoumbao. Merci, euh, Monsieur le Président, Madame le ministre, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, l'amnistie est une modalité de régulation sociale et politique par la concertation, le dialogue, pour la formulation d'une décision collective. À l'origine, elle signifie oubli. C'est un acte public solennel et collectif par lequel les fautes d'une période sont pardonnées au nom des intérêts supérieurs de la nation avide de cohésion. C'est une pratique connue de toutes les sociétés du monde et de tous les types de régimes depuis l'Antiquité, je l'ai dit en commission. Et je rappelle que c'est en 405 avant Jésus-Christ qu'on a vu le premier décret de l'amnistie à Athènes. Lors de la Révolution française de 1789, une loi d'amnistie avait absous les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis en Allemagne ont été amnistiés. Quelqu'un me disait que oui, ils n'ont pas été jugés. Je l'ai rappelé en me disant qu'il a parlé du tribunal de Nuremberg. C'est après qu'on a amnistié les nazis, oui. Mais après la révolution de 1789, c'est en plein procès qu'on a voté une loi d'amnistie. Et interroger les lois d'amnistie qui ont été votées ici au Sénégal. Qu'est-ce qui est plus dangereux d'être un séparatiste, n'est rebelle et pourtant, on a voté une loi d'amnistie ici. Où, étiez-vous Vous savez, c'est pour vous dire que pour avancer, les nations ont besoin de pardonner pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et c'est dans cette indispensable trajectoire historique que se situe la grande et salutaire décision de Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall. sama gaay waa ex Pastef ñépp xam nañ ne duñ samay xarit faraluma leen bugguma ngeen gañe dara ci réew mi mais aujourd'hui il faut ñu waxante dëgg dëgg gi xam nga mooy lan tout à l'heure quelqu'un l'a dit tey dégg naa victimes yi dégg naa les familles dégg naa ñi nga xam ne rey nañ leen mu am ay avocat yu bari ñoo xam ne nag seeni avocat lañ tey ji yu bees tàq bees pul yu ñu dajee ci paquet mais jamais mosuma leen gis ñu taxaw fii ne ki ñu rey ki dem kaso wala yóbbul nañ ko añ wala yóbbul nañ ko reer ñun musuñu koo wax parce que amuñu ci et on l'assume certains de l'ex-Pastef c'est vrai am na ay bandits ay brigands loolu moom xam naa ne am na ci mais aujourd'hui il faut qu'on se dise la vérité la vérité c'est quoi suñu waxantee moy mooy ñii bëgguñu compétition parce que dañoo ragal ñun ku ñu xam-xam ne bëgg bëre bañ bëre lii bañ mooy Ousmane Sonko bokk élection lii bañ Karim bokk élection parce que xam nañ ne nous bu ñu élection deux pour cent sax duñ ko am xam nga wax ji lan la affaire ou affaire élection on est dans un pays qui a besoin du pardon le président de la République son excellence Macky a dit que man lima soxal ci rewmi un troisième mandat mandat j'ai réalisé énormément de choses dans ce pays j'ai travaillé à ce que les Sénégalais m'ont ben fexe naa kër yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi fu ci nekk ñu am foo xam ne dinañ fa jaamoo yàlla ci wàllu jàngu mi ak ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ li ma soxla nag mooy réew mu dal réew moo xam ne nit ñi dañoo dajaloo réew moo xam ne dañoo réconcilier wu ba nga xamante nii su ma demee Sénégal dinaa ko bàyyi ci dal ba ki nga xam ne moom mooy ñëw madame le ministre l'avait di parce que monsieur le président mooy góor googu nga xam ne ku ko yëngal du bouger donc je pense que soxla n'y ak doon na pour que Sénégal réalisation je vous remercie. Merci, chers collègues. La liste des orateurs est épuisée. Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous avez la parole.